ni Cheikh Bamba li mu daj ngir yoneen ak borom maa ngi leen di bu baax a baax wax na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba am nga mbégte ak contentement del soir sur la Sen 24 TV la télévision des grands événements jaajëf war na Modou Mbacke waaye ma door rek ak Pam Ndiaye Kira mi bàkkoon Cheikh Ahmadou Bamba Khadim bàkk naa la kañ la ci bàkkoon na ko waxal ma dégg waaye ni Cheikh Bamba acca nuyu naa képp kuy bàyyi xel laa sin benkat ma nuyu bu baax a baax ci diwaanu Thiès képp ku fi yeewoo maa ngi naan la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu acca ak gox yi nga fasante ko ak Thiès ñuy suivre si laa sin benkat ak sunu ay plateforme YouTube Instagram ak TikTok Facebook fu waaye mën a nekk dañu bàyyi xel laa sin benkat TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax am mbégte contentement dellusiwaat ci seen émission musique religion ak lii rek bu ko déggee dara du leen ci bett euh, xam ngeen da ko war a dañoo jub ci màggal bi moo waral foofu ñu tëllee ak Fam Njaay Kara way ji moo yoon sëñ Tuubaa doon xel di jóg safar gi nga xamante ni dañ cee jëm naa bu baax a baax ki ñu jubbee Serigne Bagay Mbène mi bu baax a baax nee naa la góor googu su waxee ren balaa waxaat dé saa boo waxee na fatu na ko déwén ma kañ ko te way ko nuyu bu baax a baax balaay si bu di sëriñ Mbàkke ak Maara Cheikh Mouhamadul Muntaxal Basir eh. nuyu ko bu baax baax ñaan mu yàgg fi loolu tànn ko Cheikh Mouhamadul Muntaxal Basir waaye nuyu bu baax a baax waa Touba ah. di masaw bu baax a baax ñi nga xamante ne ndox mi ñoo jël seen seen kër di leen masaw bu baax a baax waaye xam nga lu ma gën a neex ci loolu laaj la naqari mu ni am sama gan yi fi ñuy dal li rek ma jaaxal waaye ndox mi ñu nangu seen kër naqariwu leen waaye ñàkk màggal gi ñare ñàkk màggal yi seen ay dal rek leen naqari yàlla suñu Tuubaa dafa leen taw ngeen ma nuyu bu baax baax suma sang bu tedd bi moom seen si xaadim si si yaaram ma ñaanal ko mu yàgg loolu tànn kooku yàlla na fi si taxawaay bi rafet na si yaaram ma nga fi yàgg loolu tànn kooku nuyu naa bu baax a baax ah, ah, sëriñ sëriñ Cheikh Mouhamadul Mounir Njege njege ma ba sa parte dem ba jëlo Amérique ñeemate saabi maa ngi koy nuyu bu baax a baax Pam Ndiaye Kara woon sëriñ Tuubaa ñu déglu ak Cheikh Bamba acca ma nuyu bu baax baax borom kër gi en suñu njëge nuyu suma xarit c'est ça bu baax baax moom suma tee suma witoo yàlla yàlla sax ma ko baax ah, maa ngi ànd ak Elzo ci ci caméra mu nekk ci yaay jaay lépp ci jat moom Elzo maa ngi nuyu bu baax acca sori la juróom la la jumaay

lamb dinna lakk disam su soo daan fallu yaa bindaataan ungalam mi soo daan ñoo ngi lay siyaare yaa disam su soo daan fallu sëñ Fall fallu yaa daanaan ungalam soo daan ñoo ngi lay siyaare yaa di sang soo daan fallu fallu yaa danga daan fallu ungalam soo daan ñoo ngi lay siyaare si fallu wekk yàlla ba war na waaj aja fallu aw bu so camiñal mari ma kuntu lu ko assi bëgg ba tay ñu waj magal xam nga li lepp ci xéetu waj magal nak bu dëré sama ya. xel du jëm fenn fallu ay gadan yeen ñi xaru bu xaru ba magal ji ñi di door xaru fallu rekkale yeen ñi bëgg football ngir tam bu leen tam bayleen ba magal ji wessu aja waj leen magal fallu ya fallu la na sëñ Fall. jàmm jeeg yu neex yi loola waral murit yi mel ni ñuy xawaare. yaa di sam sooda. man si galasaar. sëñ Saalum Fallu Fallu lay doxandoo. Fallu lay waay. Fallu lay xalan. ku ma xeex ma lay Soumaye Nogoy Sidibé mi ngi ca diwaanu Italie maa ngi nuyu bu baax a baax bëgg sëñ Fall ba gënal Soumaye Nogoy Sidibé maa ngi lay bëggee bu baax a baax su ma soppe première maa ngi koy bëggee bu baax a baax nuyu Mourad Dieye ah, ah, ak soxna yi nga xam te ne ay nekk koy bëggee bu baax Mourad Mourad ba yaa ngi wàcc ma ni Mourad ba yaa ngi wàcc bëgg naa premier safa gi rek ma seen ba Mourad Dieye taalibe Cheikh Ibrahima Ndoumbé Mbacke taalibe Cheikh Ibrahima Khoudia Mbacke ak yow baa yaa ngi wàcc sëñ fal lu bëgg fal moo neex sa lépp day valeur yaa di sam soodaan suma yaay Xadi Gueye moom it sëñ Fallou rek la bëgg suma yaay Anta Gueye moom it sëñ Fallou rek la bëgg ñoom nga yéen sëñ Fallou rek la ñuy lu jar na fekke ya di sam su sooda ak man ba xam nga ni ku woo sëñ Fallu jaaxle mu fajal la ko daa jubóon ak boroomam bala ngeen koo xam jàkk leen rek dugg ci ruq woo sëñ Fallu juróom-ñaari yoon ngeen xool seen soxla yi ni muy def faju force wallaay dëgg la ku bëgg a jaay café mënul jaar wóor sëñ Fallu ku ñu la taal lool sa taal fa seen jaay kafe nga jaay bu ñuy digg kafe gi jarul waxal suñ fallu suñ fallu suñ fallu suñ fallu ba muy juróom-ñaari falaay suñ fallu ñëw falaay ub ngalam bi xam nga daam kuy jaay kuy jaay kafe ku nekk suñu bopp koñ Omar saa bu ne nag maay soqi ma ko saa bu ne maay soqi waa café gi ñu yokk 100 francs rek du ngeen ci wax yéen ñi yéen ñi yokk café ñaar fukk ba leen li ngeen di def café gi ñu yokk 100 francs nan ko wax café kaas fukki dërëm la ba arrêté dog ba léegi kaas fukk café Touba la du café gouvernement kenn bu leen jaay kaas café fukki dërëm bañ leen 100 francs laa bëgg bañ leen ñu bàkk sëñ Fallou ngeen dégg

yaa garaaw jógu nga ni ak lan ma ni waaw waaw waaw waaw déedéet wala ku bëgg sëñ Fallou doo àgg suuf mun nga am trois appi nag sa beneen loxo bi ci kaw lay fii lu ñuy sow sow ngay sal ak ñu bëgg sëñ Fallou jaay leen ma gis bëgg Fallou leneen la tëkku la xam nga bu ma jógee Touba damay dem fële Kaolack kii di bëgg a bàkk nag mooy Aïda Sama nday tey la ma yàlla doon xaar xam sama moral rek ki sëñ bamba lii haybatun wa mahabbatuna wa anta adamul kamala gis nga kii yàlla ko yàlla defal jàmm Guten Tag. gën a daa ci réew xam nga way nag su jógee ci xol ci xol la daal di jëm waral saa koy teew rek suñu ay xol day feeñ barkib sëñ Tuubaa a mën nañ la amul woon xaw ma fu ñu jëm ndax xam nga lu waral loolu bi dina jàkkee moo ko géew génne réewum Sénégal xew ji waaye daal di koy yóbbu ci réew yi fasanti ko ak Sénégal ba foo dem rek ñu ngi bàkk laa ilaha illallah teg ca bàyyi bëgg rasulillah wallaahi da koo bëgg sallallahu alayhi wa sallam yëg na ko xëdd na mbànd ñi jaar na ci jaww ji ngir wan ndaw xam nga suñu bëggee suñu sang yi di leen xool rek suñuy rangoon ji tuubi xam nga lan moo ko waral ñoo jëloon lépp lu ñu am jox ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bu ñu doon xool Baye Niass di gëstu Baye Niass jékki-jékki daanu suñu ay àll dikk ñu daal di jooy suñu xol fees ndax ñoom bu ñu musaana dégg Seydina Muhammad seen xol day fees ñu daal di tuub seen ay rangoon ndax fu ñu dégg mag ñi rek suñu xol fees ndax la lañ a lebal yonent bi moom lañ leen delloo ndeysaan yéen ya, imagine leen imagine leen benn mag ñi nekk ñu woon ci ban senegal lay doon lii xalaat leen ci bu baax a baax mag ñi wax ci réew ñu nekk loon ci réewum Sénégal ban senegal la ñuy iya, ñëw ya, Tiwaawan Seri Bakari rek dara maanaam aram loo maam Kumba Jaam Siri Fage dem mi ci jawaar xam nga ki ñuy bàkk bëgg a bàkk mooy suñu Babacar xutbul xaafi xay bay nal mas Aminta Ndiaye taalibi Sëriñ Babacar la yaay Omar ak Alsaan seede leen xonke ma xonke ma nga instant yi baax ndeysaan ak bëgg Sëriñ Babacar pourtant su ma yaay nee naa sax Sëriñ Babacar rek la bëgg ak dàbbel borom borom caag yi beeg ngal ak soo mu neex mi ak bëgg Sëriñ Babacar ay jëf man de waaru naa kenn du Sëriñ Babacar daan nga te suma yaay kanku jaañ moo ne ak loo bëgg ci moom rek wol sama yaay kanku jaañ na ko sëñ Babacar yi ngi nii lu mu am daat lay jox dafa jekk ba jekkaal bay daam nga bay daam nga ayca ñu ngi waaj inigéré jumaa ñu laaj la ñu laaj ci murid jëf a ñaari milliards la laaj ngir inigéré inigéré jumaa jooju nga xamante dañ ko war dañ ko war a jox Serigne Babacar Sy Mansour nee ca Tiwaawan xam dañuy waaj inigéré jumaa ji faw ngeen góorgóorlu yéen murid yi yéen tijaan yi xaaj rek laay rek yéen ñëpp jëf leen ci jëf jooju ndax jumaa ji nga xamante ni moom lañ fas yéene ubbi ki ñu ko fas yéene jox caabi ji mooy Serigne Babacar Sy Mansour li ma gën a neex ci moom xam nga li mu doon yéen soo waa ji bala moo wax su waxee ren balaa waxaat dé te saa waxee fula la ci tekki geeg maanu geeg xam-xam gu rëy Serigne Babacar tey loolu pessoal conseguiu dar uma xaw ma sin Babacar Mbodj ay jëm ma ni Babacar kan soxna Rokhaya Ndiaye Ali bi wub se sambay rek dara man lu mam mi si jaar nga ni ko waaw téye la marabu téye la marabu nga ko téye la marabu nga ko la marabu la marabu

Claro. Cheikh ñëw leen waaye sax xam mu xayri ko ustaat may la jërëjëf sëñ Baba mantan muslim jërëjëf sëñ Baba ahmada baro bu ma jërë ngeen jëf ñu bëgg leen bu baax a baax nuyu waat bu baax a baax ñuy bàyyi xel sur la Sen 24 TV man ni mooy la télévision des grands événements lii la yàlla dogal mu nuyu bu baax a baax képp ku ñuy bàyyi xel ci euh, diwaanu Thiès ak euh, dëkk yi nga xam ne ñoo fasante ko ak Thiès ñuy bàyyi xel ci suñu ay plateforme Instagram YouTube euh, TikTok Facebook fu ñu waaye di bàyyi xel rek Sen 24 TV ñu ngi lay bu baax a baax am mbégte ak contentement di partager ak yéen di leen gont xam ngeen dañoo jub si màggal bi moo waral faw ñu bëggalante ak yéen ay cant yu am solo Mouhamed dina woy léegi léegi léegi Pape Kara woyoon na sànq waaye su ma yaay nawee déey faw mu bàqal ni Cheikh Ibra xam ngeen di taxaw si Cheikh Ibra tax isa Gueye Fatim Penda lak sa kaane góor ji rek ko bàq di bàq si xam nga la xanaa ne ki ni ku ñu taxaw si bu mooy seen balla ku ñu bëgg moom. Ah, xam ngeen ki. dañuy invité moom rek lay bëgg seen kan la. boo gisee seen liggéey Eljo sa xel dañ si réew ndax Baye Fall la. moo tax ñu tax si mooy seen Ibrahima Fall Issa Dieye Fatim Pendal ak Souka ah, bi. su ma yaay nag da koo bàkk lu am solo waaye xam nga su ma yaay nag mi ngi daw ko indi. xaaral yaay nag ngay woy tuuti ma wax leen lu su ma yaay nag bi daw ko indi. su ma baax TikTok yi gis lu gëral lu mu dugal déggee dama lu lu garaaw a ngi daw day woo. barki Serigne Bamba lu garaaw a ngi daw nii maa ngi gis lu garaaw lii su ma yaatu déggee te gisoo lii. ana soppi maam Serap Fall. waaw waaw maam Serap. garaaw loo xamante ni lii musuma kaa teg ba tey su ma yaay duggee ngay toog doom ji sikar doom ji sikar ji sikar ba xam ne lii ñoom bu ñu demee relève baa ngi ñëw te ay relève yu garaaw laa gis ma su ma yaay duggee ngay la mu amoon ci njabootam ñoom dafa fexe dafa jàpp sikar ba moo xool ko ba kii sikar yàlla yàlla sàmm leen su ma su ma rax yooyu yàlla yàlla sàmm leen semence la néew li leen gis daal di kontaan Ndiaye Fall xidma doon daayira boo xamante na ah, ay jigéen ñi mën góor a fa nekk maam jaara ndigal bu ko neex xanaa yëgoon lii maam jaara ndigal a fi jëm yi soxna day maa liggéey ak jëm xam nga lii moom lu doy maami Cheikh Ibrahima Fall bi Cheikh Ibrahima Fall Ndar waaye mooy maami Cheikh Ibrahima Fall Ndar xanaa la nga fàtte sax sangu sangu sangu Elzo ba eggal ni sangu Cheikh Abdoulaye ak sama waaj def naa da aja jaay ceeb aru dee ngaa rek ana soppay seen sa at loo mu sam da ko essayé ba mu sa jabar eset, si may génn problème waaye loo mu am da ko essayé eset su ndékki da ngaa essayé dem Dakar da dem Tamba na da ngaa bette yow sëñ daa bette betteewul fenn yaa tay li nga def xam nga ni du siiw ndax bëriwoo ñu bëggoo ñu koy bay aatu maan waaye ngañ ngay mu sëriñ Saali mii it war na nga wax ak moom ngañ lii lan la ngañ yi nga def ci mag gi lu mu doon di génn ko ñu ndaw laa ci seen muñ bëgg a teg sama ngañ bàyyi loolu mu dem daaw la nga defoon ni ngi coow ba léegi doyaloo ñu nga dolli beneen waa ngañ ngay lii lan la Joseph Benzia ngeen amul foofu nen ngeen alma ma naan ci ñaar ndax baat bi tane lii damay waaj a tëgg sam si sax nag lii cool yi ma invité gars yi ñu ñëw ay Omar Café lu garaaw a ngi noonu Omar Café moo yor béy béy yi laa gis béy yi fàttale ñu safar xam nga laata màggal gi safar premier jour ñu fas yéene màggal Touba naan ko jërëjëf ba safar premier jour safar fii ci diwaanu Thiel ñëpp daal di ànd ak waa xidmatul njiitalu sit na ñu ak Cheikh Bamba di koy di te di ko ba ñu taxaw fa Cheikh Bamba nañu nañu maam Cheikh Fall yow laa seen 24 am na ñu fi may paasu màggal am na ñuy may paas ba ba paasu màggal seen 24 TV képp ku bëgg rek numéro yooyu affiché woote leen ci bi ngeen ci woote di ngeen am ci paasu màggal léegi def paasu màggal yu tuur fii seen 24 ak ñu mën a paasu màggal am numéro yi affiché leen ci numéro yu barki Touba ay pam ñaa ñaa wel yàlla mooy seyte nanguwuma lii damaa bëgg nga ñëwaat ba fii lii mooy lan yow Mouhamed kaay fii murit bu jébbaloo war a xam lii laa bëgg gëstul ba gis Bàmba la mu woote mokkal gatayee yàlla mooy seyte murit bu jébbaloo war a xam gëstul ba gis Bàmba la mu woote mokkal gatayee ku teew ku fi jàng indi yëgal naa la. waaye jàng daa am ci yoon yoon. ku fi jaay jàng dama tool ji. maa yoon yi de. barki sëñ Cheikh Ibra Fall misaal la. waaw waaw. aboori jaar baraw na. xam na. ñaaw nga na. yàlla faale. saa ñun nga ñaaw. mbaa ko jàllee. te yaay séddale. maa ngi nuyu baax sama baay Cheikh Mbengue. mu Omar Baawo. la ilaha illallah. maa ngi nuyu sama baay Cheikh Mbengue mu Omar Baawo. yaa dem. Omar Baawo rek nga bëgg. borom fas naa góor yi ci kursi. yaa dem ba fa moom. na jot lii de. safar safar safar doon bëgg laa bëgg doon murid laa bëgg doon murid saadix lay doon murid jàmm ramoom lekk ma neex wala su ma doon woon murid xaw ma lan laa fas yéene. maa bëgg a doon murid saadix. bu ngeen gis ko ko gas ko ba mu xool rek daal ciy dugg rek suñu boppam. mu ne ko murid. laa bëgg a doon. murid laa bëgg a doon. murid saadix lay doon. murid jàmm. su ma nekkoon murid xaw ma lu may doon. ak murid rek laa war a doon. ndax yoonu murid laa xaj ndax damaa ëppal. laa bëgg a doon. kese kese kese yoonu murid kese laa. ni ma mel nii yoonu murid rek la moom moo ma attan ak sëñ Tuuba. la ilaha illallah. ay na muritullah yàlla ma ci woo wuyu naa wootem sa mbir laa bëgg a doon laa bëgg a doon saa di lay doon looloo bëgg a moom muy rek a ma neex xamal li nga fi doon xamal li nga fi doon murit teewlul sa ba tey yéen ñi nga xamante ni a ngi am ay saxar ngeen di contacter seen seen 24 TV ci numéro yi ak seen suuf bi ngeen ci duggee di ngeen servi waa <laughs> commercial bi ngeen daal di contacter waa Sen 24 TV yéen ñi nga xam ne am ngeen ay safar ñu daal leen koy couvrir la ci couvrir boo xamante ne tubaarkàlla yéen ñi nga xamante ne fas ngeen a suñ Touba bësam gi nga xamante ne da koo woon muy safar ngeen fas yéene safar safar ci diwaanu Thiès waaye safar ci réewum safar rek contacter ñu ngeen déggante ak incha allah rabbi dinañ ñëw couvrir leen wax dëgg yàlla nit ku def première édition bëgg nga ànd ak yéen daaw waaye dañ fas yéene ànd ak yéen fas yéene fàttali lépp loo xam ne defoon ngeen ko daaw seen 24 TV dina ci ñëwaat incha allah aja da ngeen ñu contact ci numéro yi di dox ci suuf ñu daal di déggante ak yéen ñëw ko couvrir leen seen événement yi fas yéene ci safar gi yéen ndax ñun yéen lañ fi nekkal dama ne fi doole yi gën dox di bàyyi li ba lii wees sama xol bi taa sax ci bànneex cey borom Touba yëgatuma neex ndax neexam gi cey borom Touba dëgg dëgg bànneexee waa ji cey borom Touba sàppe su li suur suurawu xiit cey borom Touba yàlla rek Salisatul Sali Sakki. ayca ñu fàttali ko bu baax baax bés baa ngi noonu muy bésu màggalu Touba. ñoo ñëwoon pour fàttali dañoo ñëw pour fàttali ñëwee ñu daal di ñokk daal di jub si waat bu baax a baax ci weeru màggal. bés bi bés bu am woote woon ñu daal di koy màggal suñu Touba. Cheikh Moussa Ka nee na bu doon bu doon deman gi wolof nasaraan te kon billaahi ñëpp dem nii kon nag ñibbi gi la ñëpp fas màggal ak murit yëpp ñu nekk diwaanu Thiès ñu daal di màggalu suñu Touba daal di koy sant daal jëfal ko ba mairie waaye suñ jógee ci loolu daal di waaj màggalu suñ Tuubaa gu màgg gii nga xamante ni moo waral jàmm ji moo waral tawfeex moo waral salaam bi li am rek ci ko amee ndax suñ Tuubaa moo wax ñu àndale leen bu baax a baax képp ko àndoon ak ñun ci ci liggéey bu am solo bi ñu gërëm leen bu a baax daji elzo ci kenn waaye bu baax a baax jox leen dig daje ba alxames ak jàmm ñu del ci